الله فيني يا الله صلي بقاء بفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وفي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي الدر منك يا الله عسى ملاسي أرجو برحمتي الله لا يضر منك يا الله مليك يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله خدست سريا يا قدوس متليا علي وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوب نفسي بيتي منك يا الله di leen xamal ni tey jii ñoo ngi fii ci université Khadim Rasoul bii nga xamante ni bañ ko commencé ak léegi ah, actuellement ñu ngi toll ci phase finale ah rawatina nag ah ci côté Touba matériaux Touba matériaux bi nga xamante ni sëñ Abdoul Ahad Ka ah, sëñ Mountakha Bassirou moo ko wóolu ba jël liggéey bi teg ko ci loxoom mu yore ko yorin boo xamante ni yorin bu mucc ayib la ànd ak équipe yo xamanteni heure bu nek équipe bi nga xamanteni mo ci war mu dem jëliko budé bir Sénégal budé Bir Touba budé bir biir euh, fu mu ñu mënti ci Sénégal ba bitim rew heure bu nek mu dem jëliko matériel bi aussi da koy jëlé fi Touba. ci en premier lieu diko jëlé dakaro diko jëlé fep fo xamanteni war na fa mëna nek ci bitim rew li commencer ci Turquie ci Dubaï ci France ci Japon ci euh, Espagne ah ba Italie donc instant bi ñu toll nag euh, avancement des travaux yi nga xam te ne moom toll parce que université bi 24 hectares la mais Touba Matériaux dafay intervenir ci trois zones zone administration bi nga xamante ne man moom laa jàkkaarloo nga xamante ne fa la rectorat ba nekk en gros œuvre bi mi ngi ci 95 pour cent mu des seconde œuvre seconde œuvre boobu nag dafa am ay échantillons yoo xamante ne moom la ñuy euh, jéem a valider. ginnaaw toujours ci administration bi mu am nag euh, batiment bi nga xamante ne moom mooy bibliothèque bibliothèque bi nag moom dafa nekk bibliothèque boo xamante ni dafa nekkoon sous-sol amoon nag ay études yu ci war amoon it aussi ay euh, projet yoo xamante ni dañ ko ci euh, nasal ngir kër xasida yi donc bâtiment le bâtiment, xamanteni mom mi m2 euh, mais euh instant biñ toll ni 6000 m2 Le mo taxaw rectorat bima 600 m2 par euh, niveau mu nek 5 niveaux 5 fois 6 30 3 000 m2 léegi ah ginnaaw loolu ñu jëblu fii nga xamante ne nag mooy bâtiment yi nga xamante ne moo nekk suma ginnaaw yi nekk suma ginnaaw nag benn côté bi nga xamante ne sama côté càmmañ la man moom mooy ah, majalis majalis bi nag dafa am ñetti bâtiment benn salle d'étude boo xamante ni 4800 mètres carrés la ak salle d'étude boo xamante ni 2400 mètres carrés la salle d'étude bu 4800 mètres carrés bi bokk na ci li nga xamante ni programmé nañ ko fii ak deux mois maximum ah, war ko joxe ah, euh, mom grand modèle bi ak petit modèle bi petit modèle bi 2800 mètres carrés la ak restaurant bi nga xamanteni nit aussi mi suñu ginaaw toujours restaurant bi 400 mètres carrés la ah, ñu prévoir ko pour 400 places yo xamanteni c'est répétitif légui nak euh, restaurant bi mom actuellement fi nek ni mi ngi ci 95 Euh, Majalis grand modèle bi gros œuvre am moo toll ci quatre vingt pour cent mu des second œuvre bi nga xamante ni électricité carrelage ak menuiserie aluminium ak inox bi yooyu mi ngi nekk en cours. ah bâtiment ba nga xamante ni moom moo ci tegu bu ndaw ba moom mooy bâtiment salle bi nga xamante ni moom it mi ngi ci euh, quatre vingt cinq pour cent de gros œuvre secondaire bi dess léegi nak ñu doo ko dem nak ci bâtiment yi nga xamante mo nek science islamique et langue arabe nga xamante dans une semaine la wara livrer ñaari bâtiment yi dans un mois ñu livrer benen bâtiment bi ci tegu fofu ay bâtiment la yo xamante ni ñu ngi nek 2400 mille quatre mètres carrés ñetti bâtiment lañu ah mu nek à peu près 7200 mille euh, euh, deux mètres carrés au total léegi nak euh, bâtiment yooyu bâtiment témoin ba fa la bokk dans une semaine nous ko livrer ñu ngi toll ci ay euh, revers d'eau ak ay aménagement extérieur pour forcer yeeg yu non noonu euh, bâtiment milieu bit, c'est la même chose droite c'est c'est dans un mois parce que dafa am ay finition yoo xamante ne encore ngi ko cay dolli léegi nag le bu loolu weesoo muy bâtiment bi nga xamante ne euh, amphithéâtre 1500 places bi amphithéâtre 1500 places bi nag gros œuvre actuellement mi Euh, soixante quinze pour cent léegi ñu war a defar problème mu ascenseurs yi ak euh, monter charpente bi doo ko mën a dugg si seconde œuvre instant bi ñu toll nii nag donc euh, ah, li nga xamante ni moo doon évolution travaux yi moom daanaka dootuñu si jaaraat parce que archive yëpp mi ngi nii ak académie minam mi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy saytu depuis bi ñu commencé ba léegi fu ñu toll actuellement ñu ngi koy jël di jël spécification avancement yi ak euh, technique yi nga xamante ni moom moo ci nekk instant bi ñu toll nii nag sur le plan technique moom en toute honnêteté euh, diggante maître d'œuvre ak maître d'ouvrage à ah, def nañ li nga ne war na ci ba nga xamante ay détails yoo toujours du mën a ñàkk ci travaux parce que loolooy waral ñuy indi ay plan de récolement parce que projet bi niñ ko saytoo niñ ko programmé dañuy dem ba ci biir di ci am ay aménagement yu ndaw ndawaan yo xamante ni y entrepreneur bi koy proposé yii maître d'œuvre la yii maître d'ouvrage la yii Euh, mbokki taalibe yi nga xamante ni ah ñoom it ah ci la ñu bokk parce que ñoom ñoo dajale seen alal ñu di ko indi fii ak ñun ak ñoom ñëpp ah, ñoom it yenn saa nga gis suñu équipe bu fi jaar ah joxe benn xalaat joxe benn idée ñu saytu ko xool ni xalaat boobu ah war nañ ko ci mën a adapté ñu daal ko ci adapté lii moom mooy li nga xamante ni moom mooy doxalinu université bi terewul it nag lu mu ci mat doon it ñu ngi koy yëgoo ak sëriñ Mountakha ba Mbacké mi nga xamante ni moom moo euh, moom moo doyloo Abdou Lahad Ka ba yëkkati liggéey bi euh, teg ko ci loxoom Abdou Lahad Ka nag instant bi ñu toll nii moom wax dëgg yàlla ñun techniciens yi nekk sur place ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que dañ fay jëlee xam-xam jëlee fi expérience ba pare jëlee fi xaalis te aussi ah, kenn ku ne bi nga ñëw amna xam-xam bo indalé amna na expérience boo indaale waaye li wóor moy que ni dañ fee yokuté te aussi ah ñu boole ko it aussi képp ko xamanténi ñi ngi fi nek en commençant ki gëna a ba ki gëna kaw ah programme la fi défar bo xamanténi mom lañ tuddé programme quinzaine nga xamanténi chaque 15 jours ñu def situation fay nit ñi ñi nga xamanténi c'est des euh, mensualités aussi fu fin du mois jotee duñu ñu le 2 le 3 ñu fay la ñom ñëpp ah, benen bi ci des it am na si vague boo xamante ne ñoom la ñu wax les nëgës xalas nëgës xalas yi mooy ñi nga xamante ne ñoom it dañuy ñëw def fi ay travaux ponctuels yenn saa yi ñu guddee fi yenn saa yi ñu def fi heure yoo xamante ne ñu doy waar la ñooñu kenn du leen comptabiliser du leen duñ leen def dara euh, pour di leen xaarloo quinzaine wala fin du mois ñooñu dañuy wàcc rek ñu fay leen comptabilité comptabilité bi nag dafay dem feneen foo xamante ne pour en bu ñu bëggee def euh, euh, bu ñu bëggee def expertise ñu mën a xam ni que bâtiment benn bu ci nekk lii la ñu coûté ci matériel lii la ñu coûté ci Euh, main d'œuvre li la côté, euh, ci assistance kon nak instant bi ñu toll nii ah euh, ñu ngi leen di sante di leen gërëm te di leen xamal ni dans une semaine ah la bëgg commencer de livrer bâtiment yi une semaine dinañ livrer ñaari bâtiment ginnaw ñaari bâtiment yooyu nak chaque un mois ñu livrer ben bâtiment non lañ ko topé ki ñuy wax sëñ Badiou nga xam mo ne mo yore Euh, kii bi rectorat bi nga xamante ni moom moo yore service pédagogique bi ñoom ñëpp ñëw nañ fi tey def nañu programme ci boobu wax fànn kon ñu ngi sant ñëpp di leen euh, ziare tey ñaan yàlla defal ñu jàmm ak salaam tey di sant nag bi académie Darou na mii nga xamante ni ñoom ñoo tax ñu mën a génne